asalaamaaleykum dal leen ak jàmm mbokki internet yu safoo di seetaan Buzz M euh, mu nekk nag ab xibaar boo xam ne euh, boobee ba léegi ñu ngi koy wax ndekete nekkul loo xam ne daal di nay wér euh, moom nag ki nga xam ne moo daal di génn àdduna turam mu ngi tudd ki nga xam ne nag moo di Ass Thioye nag ma ngi nelawee fële sa Louga. ndax naka fa la dëkk dafa nekkoon Touba dong doon fi yëngoo nekk nag ab électricien la nekkoon waaw électricien la daan yëngoo faatoowul sax Touba Louga la faatoo ay xibaar yu yi jiwoon boobu ba léegi ñuy wax ne nag Baye Fall yi ñoo ko daal di dóor kuur ba mu jaare fa ñàkk bakkanam muy wër si internet bi fu tourné di ko gis boobee xibaar nag nekkul lu wér moom daal tey jii lañ wax que ne nag ay onze heures la ñu ko denc sax ginnaaw bi nga xam ne nag denc nañ ko si la coow li daal di tàmbalee jug. ñuy wax que ne nag moom mi nga xam ne moo fi faatoo yàlla na yàlla dolli yërmande ak njéggalam si moom barke pour moom moo as tué